assalamualaikum Tata mari ñu ngi lay nuyu. <laughs> waxal ñun ngir yalla ma ngi len di fay. no gisé tay semaine de la jeunesse bi annulation bi yow nan la annulation la wax annulation nan la la non non annulation bi ni mo ma du dara nudul décret bo xamanteni président boko waccé kon donc bi nga déggee décret bi yow nan la def. dafa melni dama solon soloon bu ba summeeku. yow ah daf laa arrangé wala. ah arrangé arrangé wu ma mais nak lo xamé <laughs> man de barke dama leen wécc. waxal waxal. waxal de. kon de waaye booy yaa. ba de yaa ngi ma yàqal. loolu yow.